Sëriñ Tuubaa doon gi mu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. day firndalu waat ci lu mel nii hmm. ndaxte mbokk yi ñu ngi indi seen yére am na ñu indi ay ndimo yu bees teq hmm. yu ñëwagul am na ñu ñëw mucc ayib ñu ambale ko parce que yéene woo euh, jox leen ko nañ koy récolté nag moom lenn la mi nga xam ne yàlla dogal na sa gaal macha allah fees na dell ay yére mhm. amaana am na yére yoo xamante ne si at mu nekk benn bi nga ko sol mhm. wala am na yére yoo xam ne ba nga ko solee ba léegi solaatoo ko mhm. yàlla man na la gan nga jël ci yére yooyu noonu indi ko jox ko Serigne Touba wala nga lamb sa diba boo amee ay dàll sax nga indi boo amee mbaxana boo amee lépp lu jigéen di yittewoo ci xew mi rek boo ko indee danañ ko jox li nga xamante ne si nii yittewoo nañ mm-hmm. ndaxte kat yàlla képp ku mu képp ku mu sedd mm-hmm. dalaa seddaloo mm-hmm. képp ku mu jox wërsëg rek dalaa seddaloo te moment moment bi ngay am ay yére xotti sa bopp xotti sa njaboot faggu faggu am xar ne la bir am na say mbokk taaliba yoo xamante ne ci mm-hmm. gënoo leen nekk murit mm-hmm. gënoo leen bëgg sëriñ Touba mm-hmm. gënoo leen doon jullit te ñu ngi dëkk bii te te waxuma la waxuma la rek waaye ndekk engrais rek gën ñu koo def kon kon di gën a soññeewaat surtout góor ñi ndaxte kat jigéen ñi moom raw nañ leen sànni karawaat lépp lu man doon jigéen ñaa ci man waaw loolu lu wér la lépp rek jigéen ñee ci man waaw loolu wér na ndaxte bu fi fii mu ne li mhm. ñuy jot ci ay ndima mhm. jot jotuñu ko ci ay góor jotuñu ay yëre góor te li ngeen di jaay li ngeen di wéccee ko ci ci jigéen ñi leen ko ci góor de de bu lu woon bu lu woon jigéen ñi buñ buñ defee bilan financier chaque fin du mois waaw kon ñu nekk ci région yi ak diaspora bi mhm. danañu god maanaam danañ danañu raw lool kon macha allah jigéen Sénégal macha allah jigéen Sénégal <laughs> jigéen kër yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na uh-huh. yàgg na teewal lislaam dëgg jigéen yàgg na sonn ci yoonu murit uh-huh. fii mu lay wax ak yow ni magasin bi ñu nekk nii uh-huh. mag sëñ Mbay Siise dong ñoo fi góor dëgg la li fi ne si jigéen ëpp na fanweer ñooy trier yére yi ñoo koy paqueté ñoo koy emballé kon ñu ñu ngi ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di di di jaajëfal sëñ Abo. Mhm. di jaajëfal tamit sëñ Imam moomu ngeen dalal. Mhm. di di di rek nga xam ne Touba ca moom. Mhm. aw saan la woo xam ne bu mën a jam mën a jam ay téeméeri picc la. kon na seen ñax te te te def yàlla tax moom moo sakkan ñëpp aajowoo kon kon ñu ngi leen jaajëfal bu baax baax. jaajëf di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal équipe bi nga xam ne moom nga seqal liggéey bi muy ci bu bu bu dikkee ngeen eh, xool yére yi yi ci yi nga xam ne man nañ koy waaje ñu ñu paqueté ko kuy joxe tamit na nga joxe loo xam ne moom la nit di sol mais joxe loo xam ne ni macha allah yow yitte wootoo ko solo wootoo ko nga jox leen ko ngir génne génne ko sa kër ci kàddu gi ñu baal na mel ni mbalit moo xam ne da koy génne ñu xool tamit ni ñu koy joxe dafa ku nekk ci bu jokkoo gi ñu jël ko te dellusiwaat ci jotaay bi am kooku dafa mel ni génn na ndax li wax dafa am solo xam nga xam nga jël sa jël sa mbubu waajukaay sëñ bi mhm. ah, denc ko sa gaal sekk fekk ay sagar yoo xam ne nii daf laa sonal sa biir kër nga dégg koy laaj rek nga def ci mbuus takk joxe mhm. loolu tamit nekkul loo xam ne eh, lu war la ñoo xam ne dëkk bi sell bi di Touba ñoo ko bokk lu fi waaye mën na def si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nga ko defal te Sëriñ Touba ku ko lebal guddi nag mu fay la bëccëg